ahlan bikum Amadou Ba fa wàccee diiwaanu Kaffrine ak mbooloo mu bari mu ko teeru ca ba ñuy xamal lancement phase nationale ya alerte yéen kaay ñu ko xamal critique yéen kaay ne Kaffrine kay fa ñoo wane na ba léegi ña nga ca gannaaw njiiteram Macky Sall libération na ko faa lay xamal ne Amadou Ba door na xeex bi ci wàllu mobilisation ndax fa def Kaffrine dóom aalimaana jël fa kàddu ne lii nak fa nekk ab signal bu fort ci njiiteram Macky Sall te man aalimaane maa meeru Kaffrine ba jiite woon yëf ya na ko Amadou Ba yow laay waxal fekk njiitiram Macky daal mi ngi am kóolute ci yow jiital xamal na maa gannaaw ma ko waxee ca Vox Populi laa si yéen a kaay ne Amadou Ba kay fi mu toll nii moo gën a jekk ci nekk candidat benn bokk yaakaar ah, yow fa ngay xool far ba Ngom ak responsable yu bari nee nañ Amadou Ba lañ bëgg mu nekk candidat bennoo te àllarba bii ci la njiitiram Macky Sall di ñib si Sénégal su ñëwee ci lay wax kan mooy nekk candidat bennoo Dakar Times na ko xaay fi mu toll ñëpp xam nañ ne Amadou Ba mooy yéen a na ko hee faa bëgg nga def Aly Ngouille Ndiaye fa wax lu leer nee na moom far force fara force doole mbaam fay nekk candidat samp ndënam laaj réew mi moo xam njiitiram Macky Sall tànn ko wala mu ñàkk koo tànn yoonam newu ci Walfadjri yéen a kaay na ko waaye Amadou Ba moom fa mel ni fi mu toll nii doxalinu candidat benn moom lay doxee ndax fa mel ni door na campagne am ba ca Kaffrine Aly Ngouille Ndiaye ci info yéen a kaay mel ni ko naan loolu faa ci xamul dara sama yoon newu ci man sama kenn mënta fexe ba ma deltu ginnaaw ci sama candidature a kaay bi ne hee benn bokk yaakaar nag fi mu toll nii carte Abdoulaye Diouf Sarr source a na ko faa lay leeralal Diouf Sarr moom nee bu Macky tànnee fay topp ca gannaaw kam tànn kon kooku nekkatul problème coow li kay mi ngi diggante Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye na ko voilà yow nag fa ngaa nànd affaire bi ñetti position yooyu même ñi nga xam ne ñoo dox tànk jàmm ngir juboo am loolu lañ gis la mu gis moom Dakar Presse mooy ne Amadou Ba fañ koo boycotté ko fa ca Kaffrine moom fa bëri de na ko fa défier Aliou Ndiaye fa wax ne candidat bennoo fa war a nekk koo xam ne politicien bu xarañ nga te man Aliou Ndiaye far force faay nekk candidat ndax faa leen di xamal ne sax man waroon naa nekk candidat ma bàyyi mu jàll waaye bii faay bokk keneen ku ay ñoñom bëgg mu bokk mooy Karim Wade ba tax xay jegeñaaram waa PDS ya fi mu toll xam nga ci nekkam opération ñibbisi Karim Wade Sénégal les se ko kaay ñu ko xamal ba tey yéen kaay bi di ñu yaaw fa ngay xool li ñuy wax kitis fiscal faw Khalifa Sall ak Karim Wade yëpp am ko ngir mën a bokk ci wote yi te amaguñ ko le quotidien yéene kaay moo ñu ko xamal moom Khalifa Sall nag wax na fukki dëggam ak juróom-ñeent ci vox populi fa njëkk a xam le ne moom kenn mënul koo dàq ca yeewi askan wa waaye fa caa yokk ne gaay nag buñ tax mu wax ndax su waxee yooxu dana jógee fuñ ko foogewul li tax nag ñi koy ŋawte ŋawtee ak a yàq deram naan man warkat laa du dara ma dem wuy ji ca dialogue ba te faa bëgg mu leer njiit réew Macky Sall bu woote waatoon dialogue suba suba man Khalifa bokk ca ma ngay wax ñàkk àndam ci tas gi ñu tas parti Pastef ma ngi ko waxee ca libération ki jiite woon parti boobu nag muy Ousmane Sonko jamono ji bakkanam ba ma nga ca diggante dund ak dee moom ak ña nga xam ne ñooy amal grève de la faim xiifal ca kaso ga wal fajëri yéen kaay nee na ña nga ca dansé de ah yow fa ngay xool fukki fan ak juróom a ngi nii Ousmane Sonko ak Cheikh Bara Ndiaye ak Anibal Jim ak ñeneen ñay xiifal yëpp lekkuñu ba tey yéen kaay bi ne waa wal fajëri sax fa ñoo organisé ñu bàyyi Cheikh Bara Ndiaye nam gën a gaawee Cheikh Niass njiital wal fajëri ne Cheikh Bara Ndiaye li tax muy amal grève de la faim xiifal mooy wane ne Cheikh Baare ma nga ca diggante dund ak dee moom it de waa FRAPP na ko boole ci Hannibal ji moom i tamit mu nga ca diggante dund ak dee li jaaxal nag nit ñi mooy lan moo tax kilifa yu nanguwuñ seen njaboot dem xool leen ba gis leen la mu gis moom Ibrahima Kane bokk ñi sampoon rado moo ne réewum Sénégal état de droit fa fee deltu ginnaaw mu joxante nag baaraamu tuuma Ismaïla Madior Fall ak Antoine Diome si du quotidien moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy tey ci altine ji ci la ñuy dajale seen soldaar si nga xam ne fa war a dem ca Niger ca guerre ba le quotidien yéen ko ne soldaar si kay ña ngay waaj ña ñu war dem xeexi ji tey fañ leen di dajale ca diwaanu Thiès ngir fekk seen naataango yu CEDEAO wutali Niger source ay yéen a kaay fa xëy di ñu jox ay xibaar ci song terroriste yi ñu bëggoon a xamal Sénégal te takk der yi gàntal ko ngonk ma ko jiite woon moom la ñuy wër fi nii Le Soleil yéen a kaay moom fa xëy di laajte ne wàllu état civil bi nga xam ne nguur gi fa ko bëgg a def digital ak nekkal fan lañ ca toll tolluwaayu sénégalais yi nga xam ne fa na fa bëri ba mëpp a kaay ne ndaw ñu nag fa ñoo wax ne bu ñaanee visa ngir dugg a moo tax ñu dugg ci gaal yi barsa mba barsàq ndax pexe amul ambassade bu France ne ñuy sàkk ñu may leen visa ci Sénégal fa ñoo bëri ba jéggi dayo Boubacar Seye ne Europe fa ñoo war a xolaat seen doxalin lu ëpp ñaar téeméeri sénégalais delloo si nañ leen ñu bàyyi ko Maroc xam ne juróom-ñeent yoo na ne fa ña nga ca morgue ba fa ñoo faatu réew mi yéene kaay ne soble bi nga xam ne fa cher ba jéggi dayo manqué ci réew mi gouvernement bu Sénégal seen wax ya fa caa wuutee ah. yaaw seetal Abdou Karim Fofana la mu wax ak Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ ji lañ wax fa wuute ci mbir mi mbiram baykatu ceeb ya nekk ca waalo nga xam ne fa ñoo nekk ci jaaxle lu jege junney ton ceeb moo fa nar a yàqu ndax fa ñoo xamul machine mboj ji taw beeg yeneen yi ni mel ba tax ca vox populi ña ngay sàkku ci état bi bu leen dimbaliwut seen mbay ma fa yàqu de ceeb ba tàggat yaram Sadio Mané mbuqi na Kalidou Koulibaly ba jël na coupe arabe stade yéen kaay ne bi mooy fukkeelu coupe ak ñett bu Sadio Mané ci carrière am sunu lamb yéen kaay ne lamb ñu nag a sàjji weeru novembre Modou Lo ak Ama Baldé di bëree ci la Tapha Tine ak Eumeu Sène di bëree ña doon bëree démb nag bébé jéen fa toroxal gàcceloo tut mu rey Baye Mandione yéen a kaay bi ne Baye Mandione nag bii mooy fukkeelu jëllam ak juróom quinze défaites kii léegi mu dee taamoo bàyyi noppalu yàlla fay xable kàttan dafa mel ni lam la xabaloon jeex na de li war a jeex dëgg nag Sénégal mooy jigéen ñi nga xam ne fañ leen di siif ak a wiole GP yéen a kaay ne xam na boo xam ne fa xamoon jëkkër tas moom fa xam xale góor bu ko jàpp yóbbu ko ci ab néeg tëj ko fa di ko wiole saa su nekk mujj gi nag soxna si xaw ma nu mu def ba mujj rëcc waaye yaramu